internet yi ñu leen di baax a baax di leen bi leen de building at Boy Diop 2 building at Boy Diop 2 building bul xonq li Boy Diop 2 bul bële nekk ñaari xale di ñaari ndaanaan ñaari champion tey journée Mouniang production le avril fii si arène ñaari xale yaa ngi noonu jàppante Boy Boy Diop 2 am na ngemb building bëtt na ko Boy Diop 2 Boy Diop ko Boy Diop 2 daan na ko Boy Diop 2 waaw waaw waaw la waaw gis nga de teewal yëmbal rek bëgg ndam yàlla may nañu ko alhamdulilah Diop ni gis combat bi jeex boo bi dóor a dóor yu met kaw sambu yoon la sambu yoon la rek yàlla may ma ndam maa ngi koy lépp ñii la mbayaar yi waaw yëmbal dañoo sonn si man ay samp yoo leen. Diop. ah booy wax na booy leen booy saan tey saan booy booy Diop yaa ngi nii xale yaa ngi nii xale yëmbal yaa ngi nii xale benn yaa ngi nii xale talib yaa ngi nii xale a topp booy Diop fu ne. xale yaa ngi nii moom laay tey saan tey saan oh lii lañ bëgg ñoom ndam lañ bëgg. amuñu leneen lu dul ndam ñoom li leen bëgg booy yaa ngi noonu booy booy Diop yaa ngi noonu. ku baax di siyaare jox sa wàccuwaay. Diop ñu gis tey nga indi sa turandoo nga gis li mu bërte waaye xeex bi doy doyul waa topp si moom. waa ndeysaan moom boo xool dafa nekk xale bu neex a déggal ne xale bu neex a xelal mu ànd ak yëmbal marin benn baraak yëmbal esek naa ñëpp ngemb ko Malika tëlim xonk lu ko dalee si armée général bu Malika Baye Ndiaga Papa Dia ñoom Malo Seras ñoom Momar Tall ñëpp dañ ko doon ñaanal tey te tey lii rek la mënoon am ndax mu ne boo xam yow yow nee naa kenn du la lisee xale bi mu ne xale bu mën a bëre xale bu mucc déggal ay magam ñoom Baye Sall ñoom Aline yëmbal mare ñëpp topp ci ginnaawam lii rek la mënoon am tey pour waa ndam baraaj ak borom oto bi boole boole mi nga xam daan bëre dafa jël ay kaari bëri may jël otom yam mu jëm man sama relève ku xam ne sama benn tànk mi ngi ci biti mais daanaka sama benn tànk du ndax ñoom laay gunge accompagné leen mais xale bëgg am na ñoo xam ne du la ñoom seen mais ku mel ne caatu ngéwél bàyyi ma njoon booy naar saaru booy ay ñoom tafa soosa maane bëgg naa xale bi effacé li ma jàngoon teel ñoon te si xale bi dina ko def bonne chance waaw bonne chance rek barke alxuraan ku ma ko jox ba pare ku ma ko jox ba pare ak moom jugee fii ma teg ko damaa xam ne telu champion te wóolu te lem te man yor naa kala yu ma ko a daane. bala su ma doon bëreeg moom bu taxee ñëw ma tax ñu daje dina xalaat ma xalaat. xale bi daa am loolu laa soxla ku liggéey laa soxla ku liggéeyul soxla ma ko. ndax ñu ngi sant bu baax. taw Anta. waaw. bu jëf soog a waaw booy melax mi ngi fi. jàmm <laughs> mi waaw. waaw noonu la demee moo tax. maa ko caatu limousine la. waaw. bu tëngeej waaw. noonu la combat bu neex. waaw lu lamb ci laaj rek. lu mu laaj rek ñu def ko. waaw noonu la demee yaakamti ma teg si. xalaatuñ loolu. <laughs> Sadio. maa ngi lay fay. tey sant yàlla. Simba. Simba 2. Igri Tëngéej waaw. Tëngéej yaa ngi nii. waaw kan la. maa ngi nokku yaa. waaw. waaw. ah. dina baax yàlla na ma yàlla na ma yàlla may ndam rek. damay xeex. damay xeex waaw. c'est la première fois ma dégg doomu lébu bu ne damay xeex. damay daane dama koy xooy damay dama koy dóor ba mu tëral boppam. waa Tëngéej. waa Tëngéej maa ngi leen di gërëm di gërëm waa yéen ñoom ñëpp parce que gis naa ni ñu ma taxawoo quoi. képp ku képp kuy lébu daal maa ngi lay gërëm ak séeréer yi. ma sens waxee lu. champion naka la. nuyu naa la. waaw ah, ah, nii la nëbb rek ana sama gars yi sama mbokk yi sama xarit ay ñoom mojja gars yi caatu yof. ay booy mojja di la nëbb ngay làq. darma gars gis nga tey moom gars dam rek Baye bilaay walaay. booy bu nekk si yoon nee na dafa bëgg nga may ko sànni moo tax mu jël. waaw dara ñun moom ñu ñoo xamante ne maanaam booy si ñun la ñu yoon quoi parce que ay xale yu ndaw lañ ñu dara waaw def na def na li ñu war a def lépp waaw ànd ak sama gars yi sama naataango yi xam ne ñëpp ñoo doon jàpp si combat bi tey moom ndam rek. xale bi ngay bëri. waaw xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax waaye xam naa ko mais ma deful lu ma deful quoi yaakaar naa li ma def moom defagu ko ku daan ay yom doomu dàng booy soose yaakaar naa kooku waru ragal dara. ah waaw lu mu ñëwee rek bu ñëwee xeex bu ñëwee bëre ñu bëre waaw. bonne chance waaw ñoo far yow. nuyu naa la jaar naa la maas. tey ci loon ne tey a ngi nii. waaw waajal samay mbokk waa Kër Mbaye yëpp gunge ma ànd man waaw di ñaan yàlla yàlla defal ma ndam bak sëñ Baba waaw mafia ba ma buur jëlal ma buur jëlal ma buur buur bëggee naa la de xool mafia yi yaa ngi noonu xale xale kon Mbaye Fall baa ngi noonu nekk xale nekk ndaanaan maa ngi nuyu Omar bu Cobra sama doom yaay mais Baye Fall Baye kër kër Diallo yaa nii mais li lii mooy mafia Zé bi dañuy sonn ci man guddeeg bëccëg barki Seydina Mohamed amul lu ma leen fayee loolu ndam da incha allah tey dinaa ko am. la man ak fils la demee. xale yi xale yi jëlee kër Mbaye Fall indi leen. waaw noonu la demee xam nga loo leen waral. barki Seydina Mohamed xam naa li ma leen waral. kon loolu dañ maa topp mbapat. yaa ngi dégg ma doon lu ndaw gu guddure yéemu ma dañu guddure yéemuñ ma barki Seydina Mohamed. si kanam dana leer. noonu la demee ok. da ngay jóg. Siteu bu ante naa ne. bëgg nañ la bu baax. tey sant yàlla bu baax. Siteu bu ante. Siteu bu ante Siteu bu ante rab. ante waaw ante bu ndakaaw. waaw waaw maa ngi waaw xale bu dëkk Faas. lii lii lii si lii lan la lii. lii yàlla la rek. wóor na Serigne Touba Mbacke ay xale ndaw lañ dañuy doog a door. bi ma sunu troisième combat. dañ ñaan yàlla dafa ñun nam comme ñu naan dafa la. deux victoire. deux combat deux bi ma sama troisième combat. sa li mu def si lamb xam ko. xam naa ko bu baax a baax. fa laa bëgg a teg sama tànk nag war na Serigne Touba moo tax ma jàpp laa bëre waaw moo ma dàq bëre lu ne si man moo ko def si man ah. waaw nu ma moom la waa Dakar waaw di wax ni combat bi seen combat la ñoom laa koy bëre war na Serigne Touba mbaa ku mel ni Soulou Fall dafa sonn si ñun moom moo tax ñu jaayante te combat moom laa koy bëre sax moom si boppam laa koy bëre incha kat la maa Body Baye Fall numéro 2 waaw trois combats trois victoires dafa def bu neexee suñu borom maa ko mel ni yéen waaw noonu la demee nag. sëñ Fall tey. dama toog kër ga rek wéet xam nga man na ma làmb quoi. waaw parce que làmb dafa neex. mu ngi waaj diggante ak Batista. waaw ñu ngi waaj waaw. ñu ngi waaj waaw di nuyu aussi waa benn baraag nga xam ne foofu laa jógee di nuyu waa benn baraag mbooloo. di nuyu encadrement yi di nuyu mbër yëpp xam nga di nuyu nag sama waa dëkk. waa kër Njoba waa kër Bakar waa kër Baba waa Njaxate waa Thialé waa kër Malamine waa Tivaouane gépp département Tivaouane bépp su ma limee du ma matal waa Daaru Fall Jogo am ma seen fay maay bëggee képp kuy bëggee Alioune Mbaye Nder quoi. nan la waajee nan lay waaw ñu ngi waaj daal ñu ngi waaj xam nga ñu ngi si suñu ginnaaw xam nga ñoom Talla Diop xam nga ñoom coach su daal xam nga suñu entraîneur yi. non man moom ab ajoor ajoor daal li may indi man si moom xamoo ko mais daal li am solo. dinaa andi lu tàng jër. waa di ko ñaanal jàmm rek. waaw maa ngi koy seet parce que man benn affaire am na man ku si jël sama avance dangay jàngi bëre. ah mais mooy loolu man maa université bi. man maa université bi déggoo ma de ku jël sama avance dangay jàngi bëre. bu ko jëlee. moo tax jàngi na bëre mu si àll bi jàngi bëre nañ. ma ñëw ma daan ko. maa lay fay wér sant yàlla. dal dal ak tey xam ne li topp sama ginnaaw daa bëri waaw. université bu xale di jàngee. <laughs> mu ne. nekkul université bu xale di jàngee. waaw non dama ne dal tey jël sa temps ba arbitre sifflé ñu wane li liggéey. nekk mu fekk la ko. waaw loolu ay waxu la rek man fu mu nekk ma ko fa war a fekk man maay xale waaw lépp waaw bonne chance. incha allah. nuyu naa la. Eh, bëgg naa bi caatu limousine. waaw mu ngi nii de. waaw pare rek ànd samay mbokk yi pare. bi mooy sama onzième combat tey maay bëri spécial bi. dix combats huit victoires deux défaites. waaw gis nga de. waaw di nga rek li ma jël. di xamal ni bis bi tey sama bis la de. waaw. stade bi dama ko duy ba fees del waaw. waa Tëngéej dañ maa yeb ak waa Morola waa Jolof. ñooñu ñoo ma yeb tey. bonne chance bonne chance waaw sant naa la. naka tey sant yàlla. nu mu ñëwee tey. alors bu ñëwee waa Guèye waaye bor ko ñëw fas yéene jàpp rek daan. waaw yàlla baax na man doomu Guèye waaye laa ko waa damaa bokk ci Guèye waaye. loolu ma ko bëriwul. yal nañu yàlla defal jàmm dugg ci biir géew bi rek. lépp lu ñëw mu fekk ko fi. dinañ gis Ado mi ñu doon ko gis tey. waaw bu ko raw. waaw. bilaahi dara du xew. doomu Tëngéej bi Salaam bi. waaw dafa leer. nuyu naa ñu lay fay. gis nga gis si loo nekkoon. waaw nekkoon si corona bi moo téewoon gars yi mais ñu ngi doon laqatu suñu ruq di liggéey quoi. waaw man loolu laa bëgg. daal moo bëgg a wane tey quoi. am si loo jugee. am victoire laa jugee. waaw dama war a confirmer. waaw incha allah. foo nekk dala fay fekk moo la gën a féetee ndaw. te lim lim soxla lim yor yaa lim soxla yaa ko yor. maa ko yor. waaw lim li ma soxla lim maa ko yor. maa ko gën a bëgg nag waaw. bonne chance. waaw amiin waay. Euh, Nokia at Simba di ñaari xale ñaari ndaanaan at bu war na ñu wax ak ñoom. waaw ndeysaan ndeysaan waaw quatrième combat ba noonu Simba at Nokia waaw daa mel ni fa la nekk nag moo ma jaaxal waaw moo ma jaaxal Simba at Nokia loolu leen moo fi nekk Simba at Nokia bu caray kaaraan kan Nokia bi mu fi mujj defet la amoon mu ngi bëreeg Simba ca ndeysaan Nokia bu caaray 44 at Simba may nuyu Omar bu Kobra bu baax a baax di ko ziar nuyu buur Seeri Caat saan xale yaa ngi noonu waaw Nokia signalé na Nokia signalé na Nokia signalé na xaaral ñu xool Nokia jeexagul Simba Nokia Simba Nokia ndaw Simba Nokia ndaysaan ndaysaan ndaysaan ndaysaan Nokia Simba Nokia at Simba nekk ñaari xale ñaari ndaanaan waaye Cheikh Super Diamono ngi ne di tuus Nokia ndeysaan ñoom ñaar ñamante nañ ku ne xam nga sa morom la muy saf ñu toll ku ngay def góor bala ngay yof sa moromu góor da ngeen laale laale wee tax ku ne sa morom la muy saf moo def nañ tek ñoom ñaar Nokia bu caaree karankat at Simba Simba jël na ko Simba jël na ko Nokia bañ na eh, war na ko ndomba oh mais quel combat mais Nokia ndaanaan la waaye Simba ndaanaan la Nokia ndaanaan la waaye Simba tamit ndaanaan la oh xale yaa ngi bëre nag yaa ngi jargando di bëre Nokia ak Simba Nokia ak Simba daan oh, xale yi bëre nañ xale yi bëri nañ lu neex waay jargandu nañ saan xale yaa ngi noonu oh ne yaa Omar bu Cobra kontaan na Séré Awa Diaw Omar Séré Awa Diaw kontaan ndax mbërëm mi lim bëre yaa ne yaa Simba saan ne yaa la Simba Seexa ngi tuus fële Nokiya at Simba Nokiya am nga benn avertissement arbitre nee na ko dina ngeeñ bi ndeysaan Simba ëñ na ko Nokiya bañ Simba ëñ na ko Nokiya bañ taf na ko tal mu bañ oh Nokiya mais xale yaa ngi bëre nag xale yaa ngi bëre lu neex ndeysaan ndeysaan fii si SBT Média Nokia dàq na ko plaqué mu bañ saan xeex nañ ñoom ñaar oo oh, raak ata Nokia saan day saan saan xale yaa ngi noonu Nokia Simba Nokia moo bàyyee ko Seras bàyyee ko Caaroy kii bàyyee ko Tëngéej waaw guy gee ngi noonu guy gee ngi noonu guy gee ngi noonu ñuy seen ñëw na ñëw na soutenir doomu ndayam Cheikh na yaa ngi noonu at Simba na yaa Simba na yaa Simba naan guy gi a ngi noonu tuus guy gi ngi noonu tuus oo saan Nokiya Nokiya a ngi noonu oh. Nokiya cokkaas na waaye waaye guy gi ngi noonu tuus saan Simba Nokiya Simba at Nokia Simba at Nokia Simba ngi noonu at Nokia mi-temps mi-temps nañ am na deux avertissement abi sifle Nokia am na deux avertissement Nokia Simba Nokia at Simba Nokia Simba ñu ngi lewto placement bara Nokia la at Simba placement de bara Nokia Simba saan xale yaa ngi noonu ci géew gi yaa ngi ci géew gi xale yaa ngi si géew gi Nokia at Simba Nokia la at Simba Nokia at Simba Nokia la at Simba Nokia at Simba Nokia at Simba Noko yaa am na ñaari avertissement Noko yaa am na ñaari avertissement Noko yaa at Simba Noko yaa am na ñaari avertissement Simba am na benn avertissement Simba amul avertissement attends pour moi saan Nokia at Simba saan Nokia at Simba Nokia Siteu añ na ko mu bañ donc na ko taxawal taxawal daan na ko daan nañu bëri Baye Fall daan nañu bëri Baye Fall daan nañu bëri Baye Fall daan nañu bëri Baye Fall daan na waaw fay naa la. naa si lépp jaamu kañ. ah comme nu may waaje sama combat rek. waaw comme dab rek incha allah. ah. bi est-ce que du 6. waaw. waaw 6 wala daal xaw ma fu ma juumul. waaw. ah. laa si séntu lépp. lépp loo xalaat séntu naa ko si. waaw damay bëre damay xeex. <laughs> li moom foo nekk la fay fekk. waaw loolu dëgg la loolu laa si bëgg sax loolu laa te looloo am incha allah waaw. man aw ma lu ma koy wax du li koy ñaanal rek mu ñëw bés ñu defal ko comme ni nga koy defalee yeneen yeneen moromam yi rek incha allah. ah. wala séeréer xooyaden rek comme baba ne demaden ga comme baden a ref den ndam teen ñojoor a ndun fop jon waar falya basul basar jogaan a munde fop daal limanga rek juum kam a juum gaƴor tout me xooya fu jina jina tout me xooya den i de ndamna combat fane ma den ga ɓinun i o ndan den o ndokoor den tena ten jew combat fa ndongolo i woya we sirmang fop waaw wa simo leng daal dena fop i wa simo leng kep ku wa andoona ga rek we laya o seereer rek me xoyam na combat fane o damten a a paax i bonne waaw ok merci waaw i Julay Faye a muj sant bu baax a baax neneen waaw lamb jego laaj lamb jeexul laaj ginnaaw mooy sant yàlla ju sëndu sant ñaari waajur maa ngi nii ma si saan di wax lamb yi li mu nit ñi jàppale yàlla ñu di woo waa Grand Médine bu baax a baax ak képp kuy bëggee Ndongo mu nekk mu ñu ma ñaan taxaw ma leen ñuy sonn si man taxaw ma leen maa ngi woo si combat bi. combat bi séntu nañ si ndongo beneen ndongo. waaw Ndongo Lo ba moo fi nekk mais ak Père Birahim Ndiaye loolu la quoi. sax xam-xam. Ndongo Lo bu xam-xam waaw. koo xam ne mbër la bërëkat simple la yow ndongo ñëpp xam ne mbëru arène nga sax xeexkat nga moom xeex bi bëriwul. waaw champion la champion kenn ku ne table ndaanaan la mais yal na yàlla ci combat bi yal na yàlla may ndam. promoteur des jeunesse. commencé na ma xel. loolu day ñëw. promoteur des jeunesse. tout ma ne kii jàkkaarloo nii mooy daal ñu ngi promoteur de la jeunesse. nee naa ko ñu yow commencé jamono ku ne bàyyi na la xel. kii moo def daaw trois tournées. fii nga xam si ni mooy bii dëkk bi méttee. ren mu ñëw nag def loo xam si ni lu rëy a rëy la. ndax diggante mbay din ak dab daan loolu doo na sëkk. waaye diggante ki nga xam mooy Kogna 2 Ronaldinho loolu njardeem la. waaye kalaa ko mu si boole. waaye ñëwaguma ci kalaa bi de mu defee ak ñàkk jëriñu ah loolu nag doy na grand combat tekk ah, ak ki xam si ni moom mooy euh, mooy madame Ndiaye numéro ak ki xam si ni moom mooy moom mooy Guèye 2 bu Fass ah am na des na de des de ñu ne waaye mu ñëw si ci tournoi bi nag Kaaw Gourdin Yankaaw. Euh, Cat Daaw Defal albarka Kayra waaye Ida léegi nii waaye nee naa commencé defal bàyyi la xëy Ida bàyyi ko wax jox ko. yaa ngi naa la. oui maa leen ziare bu baax di am mbégte ci site ndax site bi sama site la quoi maa ngi ziare waa senegal gépp di julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur di ñaanal suñu Abdou Karim Mbacke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal Baye Djili Mbacke di ko ñaanal seen ndigal seen ñooñu dañu may ñaanal di ma ñaanal guddi di ma ñaanal bëccëg waaw di ziare sama mbokk bool bool yëpp di leen jox rendez-vous bi ma tëgg di wax na soxla naa ci ku ma jàppale loolu daal ndax euh, mënuma lépp mais suñ mbokk bool bool nañ jàppale seen doom xam ne am na lu ñu bëgg ci làmb daal te ku wax làmb doo wax lu moomam làmb kon seen doom mi ngi leen taalal loxo ñu gën ma taxaw daal rawatina sponsor ñu ñëw ñu ànd liggéey. journée yi kañ lay démarré. waaw incha daal ñu ngi am na am na date bu baax bu ñu bëgg ci kat na yàlla xam naa d'ici fii ak mardi incha allah ko génne ñu xam ne date boobu daal arrangé ñu ngi production arrangé na mbër yi ñun ñëpp ñu liggéey ci jox jëm ci kanam daal fii ak mardi fii ak mardi incha allah dinañ production yi génn date bi mu moom la bëgg a organiser làmb ji daal bàyyi jiili léegi léegi waaw bàyyi jiili daal maa ngi wax ma ñaanal moog seen ndigal seen ak sëñ Abdou Karim ak sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen ñoom ñoo may dooleel ma ñaanal rek li ma bëgg ci làmb incha allah dinaa ñoo topp Ado xale yi ñoo Ado mbapat ba arène mas xoolal ma xale yi xoolal ma ñaar ñaar a ngi noonu oh. mas xoolal ma booy yi oh. mas ma xale bi nu mu indi si stade bi stade bi mooy premier am mu am ndam xale yaa ngi ñibbi non lii rafetul rafetul lii rafetul rafetul rafetul moom rafetul wuñ ko ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax lii rafetul ñu ngi koy ñaawlu waaw Rambo Rambo song nañ ko Rambo song nañ ko see ngal ngal ngal kooki Rambo ngal Rambo Rambo daan na ko Rambo daan na ko am na lu xew ah ma xool ma xool xaaral ñu xool Rambo daan na Rambo daan na Rambo daan na Rambo Rambo daan Rambo daan na Rambo daan na ko. biir bee laal suuf. biir bee laal suuf. biir bee laal suuf. biir biir bee laal suuf. Rambo nuyu naa. waaw ñu lay fay. ñu lay fay bu nii rek. waaw combat bi moom combat bi nga tey ni ma ko waajee mooy li ma bëre rek. dafa ñëw dañ koy yeb quoi wax li nekk si man. te dama mel ne maa ngi doog a bëri bi dama mel ne mooy ma son premier combat sant yàlla bu baax ma yàgg sama dixième combat huit huit victoire deux défaites ah Pape Guy gi moo daan ak gàdd gi ak gàdd gi bu yaraax booy gàdd bu yaraax ah dama jox Petit Niang wala ndongolo Petit Niang wala ndongolo nañu ñëw ñu bëre Petit Niang wala ndongolo laa soxla nañu ñëw bëre

li ma ci gën a neex nag mooy Mbaye Yékini dafa jël boppam dénk ko sëriñ Modou Niang le promoteur des alternances de l'action sociale de la décentralisation et des jeunes espoirs ma ñëw mu jëlaat boppam xool ku ñuy wax Serigne Fallou Ndiaye di promoteur boo xamante ni prouvé na jëlaat boppam jël ko dénk ko ku ñuy wax Yanda Diop jëlaat boppam dénk ku ñu wax Idaly Gningue kon daal mbay ey mbay daal delloo na mbattu ca ndaa la ndax bala may jox alaaj ku jël ndongolo ndongolo nga xamante ni bëri na ak champion yëpp maa bëreeg général maa bëreeg Fambaay maa bëreeg ñàkk maa bëreeg gàkku de maa bëreeg maa bëreeg maa bëreeg kooku ndongolo waaye ku muy dajal triple champion d'Afrique bi Cheikh Tidiane ñaa ndikki ndànk ay loolu combat bi commentaire na boppam mbay ana mbay Yékini mbay marqué nga sa empreinte un an d'existence kese macha allah marqué sa empreinte ci làmb ji kon yàlla na la yàlla dafa jàmm waaye nag dama taxaw ak sama rak te it sénar à assurance nee na ma dama jëlee la mbëri waaye làmb ji bisu ko rek maa ko assuré Maguette Seye ngi nii moo ko tey muy dëgg ku mas a assuré ak waaw kon alaaji Taala Bigué pour géwél ah dama ni kii nag mooy serveur bi bu ñuy wax mbay Yékini xale yi ba leen fi tey yor tey ji licence promoteur kii la ñu wóolu muy muy mbay te sëñ Modou ngi nii nee na mbay Yékini daf ko wax ni nee na sëñ Modou ñaa man mbay Yékini mooy sama idole nee na mun nga yóbbu ko ba si moom. nee na nga jël jàpp ci loxo mbay Yékini. dugal ko taxi ay eh waay sam yóbbu ko ba kër sa Maodo. ni ko xale bii. yow lay roy. ci sa jom ci sa taalibe bëgg sa njaboot. am dignité. bëgg a dem ci Ablaye Wade. yow lay roy. moo tax ngay du ko si moom. jërëjëf mbay Yékini saale bi ngeen. jërëjëf. alaaj pambaay jërëjëf Maguette Seye Sénat assurance jërëjëf pour géwél DTV jërëjëf Demba si ak naanaan yi fi nekk yëpp di wax ni Serigne Modou Niang ñun amuñu fayam tey champion yi ñuy tudd ci làmb yëpp moo du ñaa moo leen génne moo Modou Niang li ma investir ci làmb ñu ko ko delloo waatoon mu doon multi multi milliardaire waaye nag dara jaralu ko lu dul bëgg réewam bëgg jeunesse am tey jii mbër mi nga dawal 4-4 tabax air kenn may ko lool ginnaaw yàlla sunu borom kuru Serigne Modou ñaam yi kon Serigne Modou Sénégal daf la dee war a delloo njukkal li ma naan Sénégal mënuñu kuy dund néew la nu mën balaa ñoo teral nit ki ñu naan ak a baaxoon ci bi muy dund nii ci làmb moo Modou war nañ koo décorer war nañ koo tuddeeru rëy ci làmb ndax li mu dee am lépp delloo na ko ci làmb lu mu jëlee ci réew mi ci làmb la ko delloo en tout cas dañuy wax ñaari mbër ndongo sa yaram tàng na Cheikh seen yaram tàng na waaye xaar leen jours yi lépp lu ngeen di waxante ak lu ngeen di jëfante bàyyi leen ba bis bi tey signature la te naa ngi leen di seetaan bis ba nag bis la boo xam ne laaf fekk soo bel ma leen ñaan yéen ñëpp yàlla yàlla defal jàmm alaj pambaay di la sant di la gërëm ay ayca kon nag xam naa ni dana jox buur géwal ci une minute su ko defee ñu dem présenté ñaari mbër yi bu ñu mënee xaar waaye ñu ngi ñaan arbitre ñu may ñu une minute rek. jërëjëf El Hadj Pambaay yaakaar naa ni bu saala bégee yëkkatee ay kàddu rek doyoon na waaye sëñ Modou Niang nag ndawal guddi la ku làmb daj ko danga naan man rek la mbay yi kini maa ngi laa wax ni dénk nga sa bopp ku mot a dénk nga sa bopp góor dénk nga sa bopp taalibe. dénk ak koo xam ne sa bopp fam nekkoon kon la nekk ba léegi muy sëñ Modou ñaa yàgg a jàppale làmb lool tey jii saa bu xoolee ci kaw mu fit mu jël yóbbu waaye kon nag tey jii ki nga dénk sa bopp juumoo te yaakaar naa ni mbay ki ni juumoo jërëjëf ñaari mbëri nag muy Cheikh Tidiane ak Ndongolo ñaari champion nga boole jërëjëf sëñ Modou Niang en bas en arrière kon nag ñu joxe ca rendez-vous le 26 dama ni benn promoteur ci biir promoteur yi benn mbés ci biir mbés yi ñaari mbër ci biir mbër yi kon le 26 juin fii ci arène nationale na woon fa woon rek ci kattanu yàlla yàlla si yàlla yóbbu jërëjëf Ndongo Lo jërëjëf Cheikh Tidiane Niang. ak caatu limousine saan Anta ak taawu li caatu limousine. caatu limousine ak taaw anta caatu limousine moo la wan ginnaaw caatu limousine moo la wan ginnaaw digganteem ak taaw anta caatu limousine bii mooy bii mooy onzième combat am caatu limousine mu ngi ci huit victoires deux défaites oh. caatu limousine caatu limousine ak taaw anta combat spécial journée Mouniang production caatu limousine taw anta ñaari xale yaa ngi noonu digg géew gi amba ana deer ndeysaan ndeysaan tey taaw ak caat tey taaw ak caat di nuyu Omar Sané maa ngi nuyu Omar Sané bu baax seeri Awa Jaw oh kan di Omar taaw anta ak caatu limousine taaw Anta ak caatu limousine saan ak caatu limousine xale yaa ngi noonu ndeysaan ndeysaan saan taaw limousine caatu limousine ak taaw Anta tey caat ak taaw oo tey caat maa ngi nuyu suma mag suma xarit Pape Diagne Seras kenn du moom caatu limousine moo mu ngi noonu ak taw anta maa ngi di nuyu bu baax a baax di leen ziar taw anta ak caatu limousine maa ngi nuyu Omar Bouraskas waaw di nuyu waa Tëngéej yëpp waaye lonk ko caxabal ba lonk na oh daan ko Caatu Limousine daan na ko Caatu Limousine daan na ko oh. Oh. Caatu Limousine Caatu ay saan oh. waaw Cheikh a ngi noonu Cheikh super jamono Cheikh super jamono mu ngi noonu ndeysaan xoolal ma lool rek tey waa làmb dama ne la xanaa xale yi li ñu xewal nañ lu bon xewal lii du slogan réewande la ak iñaane sa bopp iñaane sa bopp moom la wax lii dañ ne waxoon du fi am bañ ba mu am est-ce que xale yi jotuñu seen bopp. non lii c'est du jamais vu ça man musuma gis lii ñoo ko moom suñu stade jooy nañu fu ne ba ñu defal ni ñuy ñuy buddi ay chaise di sànni dañoo soxor. bu ñu ko dindi defal ay grandeur ñu ci toog. non kenn du ñu defaral dara lii lañ fiy bàyyi képp mbër boo xam ne say supporters ñoo def ni ñu aj mbër mi à fii bu mu bëreeti mu jeex. Lamine Lamine na ko wax. dégg nga Lamine li mu wax. ko wax. Lamine seex Super Diamono daan capitaine dina ak Cheikh Super Diamono capitaine dina nag bëri ay doomu dangu bëri na ak ay laay beey bëri yooyu xëy na làmba tërët yi tax mu xaw a am jafe-jafe tuuti moo tax Cheikh Super Jamono jël ko mu diggante Cheikh Super Jamono at saan xale yi li ngeen def stade bi ñaaw na torop rafetlu wuñ ko ndax stade bi fu ne jooy nañ ko fa li ngeen xewal tey rafetut rafetul xale yi bañ leen loolu ndax moomuñ ab jéggaane wuñ ko lii suñu yëf la suñu fo la dañ bu leen yàqal suñu stade bi waaye Cheikh Super Diamono pare na ak capitaine dina capitaine dina bu yoof ak Cheikh Super Diamono ndeysaan Cheikh Super Diamono Cheikh Super saan Rambo saan capitaine Dina bu Yoff at kan at ndeysaan arbitre baa ngi wax ak ñoom capitaine Dina mi ngi noonu waaye Cheikh moom pare na bu yàgg Cheikh pare na bu yàgg waaw capitaine dina ak Cheikh super jamono ñaari xale yaa noonu xale yi liñ def esaat bi rafetlu wuñ ko ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax saan Cheikh super jamono capitaine dina L'expérience face à la jeunesse. Pour les deux lutteurs, je veux saluer le monde entier, travers SBT Media. Je veux saluer Oumar Sane. Je veux saluer toutes. Wow. Jamal Lajimas. San. kooku maas maas a ngi noonu saan Babacar saan xale yaa ngi noonu seex xale yaa ngi noonu seex super jamono capitaine dina combat oh. xale la combat xale la waaw ñi dina mi ngi noonu arbitre baa ngi leen di xool digganteem ak Cheikh Super Jamono capitaine dina at Cheikh Super Jamono sëñ Modou dafa dem jëli xale bi ñëpp atte woon mu dem indiwaat ko oh, gàcce ngalaama sëñ Modou Niang koy remercier bu baax a baax moom sëñ Modou Niang Cheikh Super Jamono mu ngi noonu saan waaw waaw père Cheikh super jamono ak capitaine dina miir nga ko yee capitaine dina ndeysaan ak euh, Cheikh super jamono sëñ Modou am na kóllëre fàttali na nit ñi Mor Fadam fàttali na ñuy ne capitaine dina moom moo ko génne woon nii dafa rafet baax eh, xale yi nañ si innové waaw. ndeysaan ko bàyyi noonu capitaine dina capitaine dina mang mu ngi noonu digganteem ak Super Jamono arbitre boo na Jamono ak capitaine dina ñu gis capitaine dina ñoom Malick ñaa indi ko Modou Anta waaw Malick Niang indi ko mel ni ngan Cheikh Super Diamano na deux pas arrière taxaw waaye saan capitaine dina nunu combat bu Alaaji Maas ndax combat mag la xale mu diriger mooy xale ah mooy xale moo soxla est-ce que capitaine dinaa dina ko may. loolooy wax ji nag. daay daay daay est-ce que déggu ne capitaine daa teel a bëre. Eh, capitaine bëri na ak doomu dàngu. yooyu mu bëri ñoom. waaye Cheikh Super Jamono. dafa ñëw pour pour ba tey. yoof la ak géejawaay maa ji ma ngoone. waaw di nuyu biiru mbay borom Espagne. mënut ba maa ngi nuyu avocat de la jeunesse. ba eh, waaw. sama maam nee ku la defal teraanga foo toog wax ko. laay laay Ablaye Thiaw borom Massa Salem borom Bentali ñu ngi nuyu bu baax a baax tey gis nañ teraanga yi Alaaji Maas dem nañ fa mu jox ñu ñu lekk ba suur naan ba mandi Ablaye Thiaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye ñaari xale yaa ngi ci biir na eh Cheikh Pakete ko mu bañ Cheikh ko mu bañ Cheikh na coup oh daan ko. daan na daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko oh na ko daa daajal jël daw daan na ko daan na ko daan na ko daan na ko naa la ko daa jël ku daw maas daa jël daw daa jël expérience vers la jeunesse oh daan na ko daan na saan daan na dinaa taxawoon dinaa taxawoon tuuti rek dinaa. Ah, la non nii la ma doon demee ñii ñii. bu ma leen gisee du ma leen gàcceel bilaay walaay. yow doo sant léegi benn équipe moo fa ne. dañuy liggéey bu baax bilaay. wóor na rasulaay bilaay walaay. wóor na yàlla. ñun maa ngi ñëw moo topp suñu ginnaaw. ñun maa ngi moo topp suñu ginnaaw du ñu ragal. ñun ragal ñu xeex. barke alxuraan. seex fu mu seex mu taxaw ñu xeex. dafa kaawul dafa teel a kaawul daw mais bu taxawoon dama koy dóor ma daan. remise bi ko remise ah? xam nga gars yi dañ ma jël. gars yi dañ ma jël. billaahi wallaahi Yoff benn écrit moo fa ne combat bi six jours laa ko jël. gars yi teg ma lu miti li ma teg na yàlla. fan jëm fan nga jëm. ngi noonu oh, am na lu ko naqari am na déception am na déception waaw prési prési lii gisee non ñu ngi félicité capitaine Dina di wax booy bi xalal la mu dem liggéeyaat rek entraîné bon di ñaanal capitaine Dina ndam li jikko waaw lii moom da doon daan ay mbër kon bu ñu ko daanee tey jarul yenn wax yi quoi waaw jarul benn wax waaw. moom dafa signalé la dafa signalé. non waaw moom loolu la expliqué nee na arbitre bi mu laalante waaj waaj dafa niin mu signalé arbitre pour loolu mais loolu. Euh, bon loolu du reglement il avant ñuy bëre arbitre dinañu xool ba pare comme bàyyi nañ ko mu bëre si loolu rek sa veut dire que c'est réglementaire quoi waaw di ñaanal. sa dafa juum. waaw mais xalal la waaw xalal la dafa juum mais dañuy dem rek liggéeyaat xam nga waaw xam ni lii la yàlla dogal quoi waaw. loolu la ok. bu baax a baax da nga gis tey ñu ñëw leen fii si arène nationale suñu papa woote fi sëñ Modou Niang ñu gis fi combat yi fi jot am muy combat doy waar. mu nekk 10 combats grand bi ngeen gis ni mu jeexee di nga def Cheikh Super Jamono ak capitaine Dina capitaine Dina mu mujjee am dam ci kaw Cheikh Super Jamono mooy nuyu suma ñaari soxna yi Maas maa ngi lay nuyu sa di la nuyu bu baax nuyu sa ñaari soxna yi ko nuy bu baax a baax di ko ziar at maam jaara waaye di nuyu kenn si man lu mun a ñàkk soxna Maguette Sène nee naa la lu ma sol lu rafet rek moom la soxna Maguette Sène beneen émission fii si SBT Média kese rek.